Euh, mbokk yi asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci seen tur euh, ak seen sant di rafetlu bu baax a baax euh, teewaay bi di leen di wax ne nag namoon naa leen <laughs> namoon naa leen bu baax a baax donte fa ma nekkoon fanweeri fan a ngi maa ngi doon dégg di gis li nga xam ne moo doon xew ci biti am na ay laaj yi ñu ma laaj daanaka sax. mun naa si bañ a sori ndaxte Aliou Sané ak euh, maître Moussa Sarr tontu nañ si bu baax a baax waaye li nga xam ne moom laa war a njëkk wax mooy gërëm euh, gërëm boo xam ne amul àpp euh, mbootaay ak nit njaay ak noppam maanaam les personnes physiques les individualités yi nga xam ne ci Sénégal ci Afrique ak bitim réew mbootaay yooyu ak nit yooyu góor ak jigéen mag ak ndaw ñoom ñoo mobiliser wu fanweeri fan ba lii tey mën a am ndaxte kat budul woon ñoom seen mobilisation kon tey duma fi nekk lii am mooy dañ ma ne coppet dugal ma rëbës askan wi ci senegal askan wi ci àddina ne ma coppet rëbës ne du fi amee génne ma kon li nga xam ne moo war ci bu njëkk mooy gërëm ñooñu bu baax a baax ndaxte kon ba tey jii nii may wax ak yéen maa ngi biir rëbës secteur 5 chambre 36 euh, di gërëm avocat yi maître Moussa Sarr mi toog fii maître Khoureychi Ba maître Amadou Ali Kane maître Amadou Sow maître Amadou ñi nga xam ne bi affaire bi amee ak léegi ñoom ñoo engagé combat bi d'abord ñu am taxawaay bu mot sëkk ci combat de la communication ci bataille de l'opinion ndaxte loolu dafa amoon solo ndaxte liñ doon teg sama bopp liñ doon teg samay mbagg wax dëgg yàlla boo ko déggee du jar nga mobiliser wu. avocats yi contribuer bu baax a baax ci bataille de l'opinion bataille euh, de la communication ñu ànd si ak mbootaay yi bataille boobu waral mobilisation au niveau national et international waaye itam. ñu engagé également le bataille euh, la bataille judiciaire bataille judiciaire boobu moo indi euh, ñu gañe une première bataille la bi gagné guñ ko waaye am nañ ndam boo xam ne euh, mënuñu ko ñàkkal fayda ndaxte kat réew moo xam ne Karim Wade tey nañ ko ñetti at jëlee ko ci réew mi. xalifa sàll tey nañ ko ma nga foofu ba léegi Adama gay tey nañ ko ma nga foofu ba léegi bu citoyens yi mobilisé woo ci Sénégal ak bitim réew ba génnee ma te ñëpp xam nañ ne bu dul woon mobilisation yooyu du ñu wax ñaari weer ñetti weer ñeenti weer waaye naa fa yàgg loolu wax dëgg yàlla ndam loolu dañ koy rafetlu man nag xam naa bu baax nag ne du sama jëmm moo am solo li am solo mooy nous sommes tous en sursis maanaam ñi toog ci taable bi yéen mii di taskatu xibaar yi citoyens yi ñuy déglu dakaar ak bépp département ak région bi nekk ci réew mi ñun ñëpp nous sommes en danger ñun ñëpp li nga xam ne moo ma dal mën na leen dal dal na ñeneen ak ñeneen avant Guy Marius Sagna te loolu nag mënul wëy jàpp nit après ngay wër li nga koy toppee loolu buñ ko seetaanee suba Aliou Sané la suba maître Moussa Sarr la suba Khadim Wade la suba madame Maïga la suba Thiat la loolu mënuñu ko nangu tey mënuñu ko nangu ëllëg ndaxte askanu Sénégal nag citoyen sénégalais nag war na am sañ-sañ am xalaatam wax ko waaye itam xeex. ngir beneen Sénégal xeex ngir beneen Afrique xeex ngir beneen àddina te loolu mooy suñu taxawaay donc du sama jëmm moo am solo liñ doon xeex fanweeri fan a ngi mooy fexe ba euh, ñu sàmm li nga xam ne mooy euh, liberté mooy démocratie fii ci Sénégal dëgg la nag bokkoon na ci seen plan fexe ba xeex bi nga xam ne moom la ñu sumb ñu bokk ko muy xeex ngir euh, am amu Sénégal ci wàllu zircon ci wàllu pétrole ci wàllu gaz ak ñoom seen mu des ci moomelu askanu Sénégal muy li ñu woowee souveraineté économique mu des ci moomeelu askanu Sénégal mu jëriñ askanu Sénégal et non ay multinationales mu jëriñ askanu Sénégal et non président Macky Sall ak ñi mu àndal ak i mbokkam xeex boobu nag la ñu bëggoon na ñu indi. bëgg a def diversion comme ni ko Aliou Sané waxee diversion bi nanguwuñ ko te duñ ko nangu xeex bi dina continuer donc gërëm euh, gërëmaat mbootaay yi ci Sénégal ak ci bitim réew ci seen teewaay ci réseau sociaux yi ak ci mbedd yi ci wàllu organisation ci wàllu communication ci wàllu sax koppar ñëpp dugal nañ ci seen loxo ba ci wàllu ñaan mag ak ndaw góor ak jigéen ñooñu ñëpp ah mënuma am seen pay ndaxte comme ni ma ko waxee sànq budul woon ñoom tey jii nii duma fi toog bu woon ñoom tey jii nii maa ngi rëbës donc euh, gàcce ngaalaama ndaxte askanu Sénégal démocrate ak progressiste yi nekk senegal wane nañ ne bu ñu euh, takkaayoo bu ñu taxawee temm ah mun nañ tax ñi nga xam ne ay noonu démocratie lañu ñi nga xam ne ay noonu liberté lañu mun nañ dellu ginnaaw donc ndam loolu suñu ndam ñun ñëpp la te nag ndam loolu day delloo si yaakaar day dëgëral yaakaar yaakaar ci ne ah Sénégal gii kat ay bañkat ñu ngi fi ay démocrate ñu ngi fi ay mbootaay ñu ngi fi ñoo xam ne. am na loo xam ne duñ ko fi seetaan tey duñ ko fi seetaan ëllëg donc xeex bi day woy loolu kon euh, laa amoon euh, li may wax di si yokk nag ne xeex bi moom day continuer fekk nooteel mu ngi am Sénégal dinañ xeex nooteel dinañ ànd ak waa Y'en dinañ ànd ak waa Amnesty dinañ ànd ak euh, <coughs> bépp mbootaay dinañ ànd ak waa aar li nu bokk dinañ ànd ak waa FRAPP boole suñuy doole ngir nooteel googu jóge fi donc fii amul dellu ginnaaw fii amul ragal fii kenn mënuñu fi xooxatal tey la waalo gën a ay ndaxte bés bu nekk nga gis fi loo xam ne day gën a dëgëral sa gis-gis ak sa ngëm ci ne euh, foog ñu ànd bëre foog ñu joxante loxo ngir tabax Sénégal bi ñu bëgg ngir tabax beneen Sénégal ngir tabax euh, beneen Afrique ngir ubbi suñuy gëtu doom suñuy gëtu sët ci Sénégal googule jër ngeen jëf